ko fa xam ne engrais ja ee ni ree ko am dam ni ree ah bro foo jógee si man man dama bëggoon doxandu mais jib nañ demaale waaw teel nga dem amul waaw ole. taxal yow. jaajëf. voilà. alors. nice. jàmm. ci la naa foo jëm ni. fii laa jëm si naa si kanam mais ma ci wax. dama lay jox wala joxoo la ko jox. Ah, waaw léegi nit a la de. ah daa la nit a moom. bàyyi boo man temps oto laa bëgg booy. oto la temps oto laa bëgg. léegi dépassé nga vélo. non oto mel na ne. 4x4 laa bëgg. mais au lieu gaan yow gaan nga ne ah. bu noir laa bëgg. léegi nu muy mel boobu. 4-4 nu muy mel. Ah. day rëy. Ah. am ñaari lamp. am 4 pono. si ginnaaw ñu bind fa Pajero. mais si ginnaaw ñu bind fa Pajero. mais na léegi de. waaw yow waaw léegi yow nu muy mel léegi yow nag. nag doon laaj ñu mel. léegi yow nag nu muy mel léegi nga wax. nag nag day rëy. waaw ah, ba pare am ñaari béjjén. waaw ah, am ñeenti tànk. ah, ah après mu am si génn si ginnaaw. waaw wér na wér na wér na la kay doom day wér na. eh wuy ma eh taxaw des nag <laughs>